Thank you. waaw Maxu ñoo ngi lay gërëm di la sant ndaxte presque il y a six mois derrière yaa ngi woon ak ñun fële ca Sorano tey ñoo ngi ci deuxième édition de la nuit du mode le masque sacré en terre sérère mu doon loo xamante ne ci ay gox yu fasantikoo fu séréer dëkk benn yon lay génn ci ñeenti at yu ne wala juróomi at yu ne ren nag ñu ne dañ koy indi daaw indi nañ ko fi ren ñu ne dañ koy indiwaat ndax soo ne séréer nga ne lël te lël boobu dafa dem ba ñu bëri tey sax dañuy toog ndakaaru wala feneen jàpp ne waratuñu dem sax yóbbu seen doom jilal te mu doon bërëb boo xamanteel mën nañu wax ne que day yar gannaaw lañ la fay defal yar gi def ci jiitu waaye nag mbot mi mooy loo xamanteel moom mooy gunge lël bi ndaxte lël boobu su jógee dem ñaani yëkk ba mu reere su demee ci kilifa ga nga xamanteel moo yor ay nagam yéene ko may leen ko su demee ba ñu noppi ngir gërëm ko mbot boobu la ñuy yenu tëgg wëy fecc ndax ne ko jaajëf ndax te amuñu xaalis amuñu leneen waaye yow mi leen jox ñu lekk naan foofu rek nga daal gërëm bu baax a baax loolu mooy mbot bi te koy defere soo xoolee lu ci bari dafa amal sereer njariñ mu dem ca bant ba ba la nga xamante ne moom mooy dunq ginaar wa cay nekk loo ci lim rek dafa amul solo askanu sereer ci démb ak barki démbam ba tax na tey ñuy dellu siwaat cosaan gën ko dundal gën ko bëgg a dekkil fii nga xamante moom mooy Ndakaaru ndaxte su jógee tul au sommet di dem à la ndax jóge à la base dem au sommet je pense que dañu jàpp ne yàgg-yàgg lañ ciy wut ak lañ ci soxla daañ ko am moo tax ñu ñëw file tax ñuy gërëm ñëpp suñu parrain yi daaw ak suñu parrain yi ren mu dem ci maanaam le maire de Gandiaye ma Pape Sanga Diop Alpha Samb nekk opérateur économique homme d'affaires hôtelier mais aussi Modou Sène bokk ci ñun moo di Ñing le président du mouvement Teranga bokk ci ñun nekk at parrain waaye ak mot ci fi daje tey yëpp muy Pout Diack muy Caacaw muy Kër Sango waaye tamit muy fi nga xamante ne moom mooy Diack ak Pesaxe seen une classe d'âge bu jógee koo njaga ñaaw ñëw tam ànd ñun ci guddi gi ak Habib Sène bu Tateen vraiment ñuy gërëm bu baax tam waa Yane Family ndax lu ji njaak ñoom ñooy njaak man mënuma dara ñoom ñoo mën um joka njala paax fogol sereer gitma pokotor ke ngatna men fop we na mbaja ngar to mbadiida fule we ndefnan ɗatere we mbadiidna yo joka njala fop layanune yengole ka le yeng mbot o yengada fo cosaan to kuy mbaagna ten we mbaan pour mbaago mo sot kanet ñoowdat cosaan o ade fo cosaan sereer lam mbot ka ref ka andoona ka jeg solo no sereer maxu ñong bu baax a baax